le débat

ñu yennu leen ba ñuy seen seen kër ñu dóor leen ci suuf am na fi te man euh, ku ne xam na ne son boobu dama fa bari ay supporters wax dëgg yàlla sama fans club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine Lambaay saa bu ma amee combat dañuy départ ñëw foofu dañuy dox dem waaw loolu moom. kon xanaa su su ma su ma ko déggee Iba yëkkati ba borom di seen këram biir arène nationale da nga xalaat ci combat bi. loolu laa ñaan yàlla de wax dëgg yàlla daan daan booy ñaa waxuma daan yëkkati wax ne. Hmm. exemple jóge feesu taxula yàpp bokk. jóge peesu tax te yàpp waaw sama maam daan na ma ko wax. très bien peesu maanaam fu ñuy feese taxul nga am yàpp. Ah, daan naa xaw ma na lay wax ne foofu liggéey la quoi. Hmm. la jéegi arène bi ñaata mbër ñoo jóge foofu ñu yéenu leen dóor ci suuf. kii mën nga ko cee boole yow ci loolu. loolu laay ñaan yàlla di wax dëgg yàlla. Oh, man kay xam naa dama ne ndax mën nga ko cee boole. am nga lu ko ci boole yow euh, am na am nga lu yëkkati booy ñaa ba muy seen pikin dóor ko ci suuf am nga ko. loolu laay ñaan yàlla quoi. moo tafa dama ne ndax am nga lu yëkkati booy ñaa dóor ci suuf. comme li may wax rek pour moment bi moom beaucoup de axe mooy de parole ko amul wax bu bëri li des suñu kanam bëri na ko voilà mu loolu leer na. booy mm-hmm. dégg nga Ibacar li mu wax mm-hmm. yow yaa dëkk ci arène bi yaa dëkk Pikine mm-hmm. yow la ñuy fekk si ndax fekk si boobu tamit du nekk loo xam ne nii lu lay teg pression lay doon wala yu mel ni ki noonu non mënul am pression parce que suñu suñu suñu gox la ñuy bëree mm. waaye làmb ji dañ ko bokk maa moom waaw Pikine moom maa ko moom wala suma supporter ñoo ko moom mais fi ñuy bëree ñu ne maa moom ñoo ko bokk waaw waaw mënul am pression ñun lamb ñoo ko bokk làmb la dañ ko bokk dafay waaj man ma waaj ñu ñëw bëri xeex taalif moom bul jaaxle combat yi mënul sedd <laughs> bul jaaxle yow yow jël sa temps amul ragal <laughs> li ci kanam noonu la noonu la moom xam na ni sax combat ah. bi dafa war a neex day metti moom xam na loolu dafa xam ne loolu caalis non caalis caalis yaram bee tàng dafa bëgg dafa teel a tàng waaw naan rek amul problème waaw ñu def ko combat bi dafay neex waaw dafay tàng boo ñaaw bu amee xaral ci Sa Thiès ah. un pour cent la ci sama mag moom un pour cent loolu dama ne. waaw wax dégg la la dama ne su ma amee xarar ci maag Sa Thiès. Hmm. pour cent la sama xarar maak moom. ok comprendre dégg nga ma. dégg waaw waaw combat ma Tapha Tine du yomb mooy moo ko dara ñaanu moo ko dara lamb la dañuy bëre dañuy xeex loolu moom charge bu mu yaakamti amul ragal. maanaam da ngeen ciy ñëw. waaw mais làmb nag xam nga communication day dérouler déroulement la. ok moment bu naag fu ñuy toll fu ñuy toll dafa dégg nga lim wax ne na jege peesu taxu la yàpp am nañu dëkk ci arène ba ñu yenu leen ba seen biir weer mhm. dóor ci ba ñuy seen seen kër sax am nañu jógee feneen ñëw tamit ñu yenu leen ba waaw dóor delloo leen fi ñu jógee woon <laughs> mbaaru ne ko ñibbil dëkkoo fii ah, ki dëkk ci arène di gëm la yar ba ci kaw dóor ko voilà koo xamante ne dafa jógee ñëw bu la yaro da lay delloo ok du ngay jógee woon ok mbaaru moom dañ ko nar a da nga ko nar a. Ah, <laughs> lépp mën naa ne làmb <laughs> ne ko àcc dellu ñibbi. non lépp mën naa ne làmb la mais dafa wax ko.